لنان إنا لله وإنا إليه راجعون لسنا برم كل من عليها فان في مملكة في توي دينواو لب كيف كفنا كردم في ديك ويب فا وجه رب كسر جلالي والإكرام كن إني دلوا يب سنا برم ديكو جالي نب كي أدنى بيب يب يب يب نخ كنا خم غني أبي لجيم ci àdduna bi yëpp dans le monde entier kon donc dañ koy jaale waa Sénégal di ko jaale waa Afrique di ko jaale waa Europe di ko jaale euh, sunu papa yu suñu ak waa Super Étoile yëpp di leen ko jaale yéen yi nga xamante ni yéen journalistes yi ku ne xam na Habib Kane ñëpp la doon bégal euh, dañuy delloo nag lépp ci loxo yàlla ndax yàlla moom kilifa diina beek musicien beek kiy jaay marché ci ta ci ci table yeeg ñëpp la bokk yemale ku mu soxla rek da dem bu sa waxtu jotee moom virgul doo ko manqué kon ki dem dañ koy ñaanal yalla yalla xare ko aljana ñi nga xamanteni ñu ñu fi dess suñu borom may ñu gudd fan ak wër bañ mun leen ñaanal euh, di gëna rafetal jëf yi wa li may ko ci abib moy moy baxam rek abib foko gisee rek mu ngi mu ngi gisee mu ngi euh, musulo ko gis kam do ko gis mu changé euh, nit ku bëgg liggéey la nit ku bax la man de vraiment de ma part personnel dafa nekkon nit bo xamanteni ni daf estimé won rek sha allah à chaque fois li mu daan wax ci man day dafa dafa rafet daal donc bi ñu déggee dese bi ñëpp la jàpp Afrique bi yëpp daal la affaire bi euh, jàpp mais mënuñ ci dara ndax yàlla moo dogal. Euh, c'était au Djus Foyou mu doon joué ma ñëw assisté si sama souvenir bi euh, bien dafa mel ni yéegoon na yéegoon na ci concert am boobu ci laa ko mujj gis daal vraiment ci laa ko mujj gis. non bi ma koy mujj gis aussi tamit mu ngi nekk Bercy mu ñëw def lu nice mu nga xool mbiru yàlla que ni. kii yaa ngi koy gis tey tey nga koy gëj gis kenn mënul woon xalaat que ni tey kii ci seen bi nii nga koy xoo seetaan nii ci nga koy mooy seen mujjantil gis ci ci mooy nag mooy mën a la mooy suñu euh, suñu borom ay affaire am noonu la demee à chaque fois li nga yaakaarul rek lay def donc yàlla na ko yàlla xaree àjjana yàlla na ko yàlla xaree àjjana euh, aussi nag mu nekk loo xamante ni ñëpp dañ ci war a bàyyi xel euh, te xam ni àdduna bi kenn dëkku fi ñu rafetal jëf yi rafetal lépp te xam ni dee moom nee nañ la bu ñëwee te bettewul rek deful luñ ko sant à chaque fois nit kuy yàlla ki muy jël mooy ki nekk ci projet ba yaakaar ni yow projet bi dafay mat suñu borom ñëw jël na yàlla mooy li ma la xoolul ministre xoolul président xoolu dara ku mu soxla rek sa waxtu moom doo ko doo ko doo ko weesu moom la ñuy wax ci alxuraan am na fu mu wax naan yow ma yarow naxa lam ba su illaa asiyatan aw duxaaha yàlla suñu borom nee na boo demee ba dee taxaw ci sa ci sa ci sa ci sa kanam day mel ni bi ay ay ay kers nga fi def ay ay waxtu yu ndaw kon nak lo xamanteni ni mu ñëwee da nga yaakaar ay waxtu nga fi def kon nak na nga jëf lo xamanteni ba bés boy dem do, rëccu dem ba ngay dem da nga naan sax la mo ñëw kon yalla ñu yalla dool sutura